nijaayu kii de nijaayu Balla la ak Sa Thiès maa ngi lay ziar. maa ngi nangu ziar bu baax am nga jàmm. sant suñu borom baax a. combat wulli ak liiru koo faral. liiru ak wulli. ak wulli sama doom la. gisoo ko ci kër gi. Ah. waaw ja liiru jaar na ko gis fi man kii laa faral de. man liiru dem. liiru ah. du dugg si ci kër gi. comme borom kër gi ñëw na nu mu duggee ci biir kër gi. wulli borom kër gi. ah wulli kay mooy borom ko gis fii ci kër gi ci biir kër gi. Ah. koo gis ci biir kër gi. wulli nga gis jeexal na bu fi nekk du sonal sa bopp. bu kii bu taxawee ne da koy ngem. bu tàlle kii loo wax ba pare ma wax li ma bu muy bëreeg eh, kii wulli maa koy ne mu wulli ko. wulli non non waaw ma indi Salif mu wulli ko. bu soobee la bii maa koy yóbbu Gambie mu wulli li Gambie pare laaj revanche mu wulli Sa Thiès. waaw li neexul ak Sa Thiès. ak nijaayam ji ma ànd ak kii lu ma ragal. yow mii saa ëpp la doole. kii kii ëpp lu kon xam a bépp paaj dafa koroon. fii laa lay ndax xam nga bii de. xeex ba métti woon nag. waaw bii rawaas bii bii rawaas. rawaas bii. liiru kaay. waaw. ana Sidiya Sidiya nee na Sidiya nee na kii la faral wulli Sidiya nee na wulli la faral ma ne dafa nag ba ma puus rek kii la kat la mu caaxaan ma ne fu mu toll nii wulli laa faral waaw ngay nijaayu Sa Thiès ak maa nijaayam waaw Sa Thiès loo gis ci loolu li sa nijaay wax dama ne la kii li mu yor yëpp mi ngi sama loxo kii bu taxawee da koy jox dara bis bu ko joxee rek sànku na dëggoo ma ne la yi moom lay am moo xam fii wala fii wala tànk yi mu rappel ko mooy choisir ci nu daanoo mais te bu wuli daanoo ba pare bu ko liiru daanoo ba pare mu ñëw ma jox ko malal sama rakk jee mais déglu ma wax la non sa sa nijaay daa am lu mu wax sa sa nijaay nee na wuli day daan liiru jaan mu jox la ko mu fayu revanche ci yow yow mën na ne nijaay dama lay dóor da ngay wax te ko ci yoon dama lay dóor dama lay dóor sama yoon bu jaar ba daaw kii xam nga su waxee loolu day kaf kii c'est mon ami c'est mon frère oh. caaxaan booy bi dañ koy defal ku koy defal ñu koy defal kii Saliou Khoulé nga ne moom la àndal Khoulé borom daaru Saliou Khoulé kaay Saliou Khoulé kaay Saliou Khoulé kaay borom daaru ko àndal borom ko àndal ah. wuy ma waaw waaw kii sama rakk la sama xarit la yàlla ko def waaw waaw sama rakk la sama xarit. ni nijaayam àndut ak yow de. kan non kii sa nijaayam ne ne wulee borom kër. mon ami barki sëñ Bamba. kii c'est mon ami c'est mon ami. yow barki démb lan daje maak yow tubaab fa kan la. Balla Gaye seytaane sa bopp Lamine wax la. kii seytaane la boppam bu ndaw. Eh, lii am nga problème de. waaye kan moo am problème. man lu may dox di ma am problème. xam nga problème lu may dox problème. lan moo may jox problème laa la bëgg a wax. Balla Gaye bu àndee guul amoo problème. kii fi ne. dafa Lamine wax loolu déglu ma dafa jàq Saliou Khoule jàpp ci loxoom ne ko nan dem ndax fi ne man tiit naa xam nga Saliou Khoule xam nga Saliou Khoule dafa baax ndeysaan te da bëgg. Saliou c'est le maire. non non non ndaanaan la. waa wuli doon maire ci yow. non non non non Saliou c'est mon ami c'est mon petit frère. wan ma sa xarit ma wan la sa mbokk loola sa fa. ami c'est mon petit frère xam nga benn affaire moo am je connais très bien Saliou je connais barke Serigne Bam muy taalibe borom daaru. Oh, maa lay wuli ba nga nooy. jël Sa Thiès mi. doo wuli jaayam anima doo liiru sa komba ak Xaadim Gadiaga nu mu demee. sama komba Xaadim Gadiaga fu ngeen bëree. Assane Diouf ku daan. Xaadim Gadiaga moo ma daan. Xaadim Ndiaye euh, euh, Daara Jolof la ba Daara Jolof dañoo mag si nii waaye fi Ndakaaru moo ma daan. waaw ah, léegi yow ñaata victoire nga am. loolu nga fi wax lii la lii mooy yow saytaane nga yow. yow saytaane nga yow. booy xoolal booy xoolal booy. bu eh. ko doon eh, ñaata la am gis nga booy bi ñaata ñu tool la am. bari sax booy. Eh, dóor mu daanu. tey Omar dingente kër gi fees dell saa lu mu yëg si lu mel noonu. waaw dañuy kontaan rek parce que tamit xam nga santaat yàlla baax baax parce que yàlla yàlla rek ay maye. te aussi gor rek ay gor rek ay gor gor mooy dëgg. nag bu la lebalee da nga koy fay. te it mbaax gi ci moom balebal ko tey ay nawleem moom lañ ko faye lii te it jàppoon ni bu keneen tamit di xewle nii ñu ko gisee fii danga koy gisee ci beneen auditeur bu mën a doon fii ci Guédiawaye ñëpp benn lañu aussi tamit di profité di wax ci occasion diggante Lirou Diane ak euh, Wouly gis nga àdduna dañ say laalu Lirou Diane at bi mu am ba wàccee bay bëri Wouly Wouly ab sata ko bay bëri moom kii def ko mag kii def ko rak loolu dafa am solo gis nga li ñuy def nii ambiance pour neexal làmb ji waaye defuñu ko mii dara liiru jaan amul xolu ki ñaan jàppal wuli dara wuli itam amul xolu ki ñaan jàppal kay dara di wax ni làmb ji nañ ko rafetal ñu ñëpp benn lañu mais tey nag li ñu fi dajale nag mooy bisu Balla bi sëñ Saliou bii laay wax sax du ma ne bisu Balla mel ni sëñ ko tuddee ngeen bokk turandoo mu jëlaat tur bi tudde dubbee ko sëñ Saliou Mbacké loolu tamit loo ciy wax waaw santaat yàlla baax a baax a baax ndax loolu rafet na kenn ku ci nekk ñaan nga yàlla. xam loolu rafet la ndax tur das koy xoolaat ko koy tuddee tur dañ ko waaw tur dañ koy rafetal ndax dafa am solo ngir ëllëg xam moo tax bu ñu jëlee tuddee ak Sëñ Saliou ah bu ñu ci am rek wax dëgg yàlla kontaan nañ ci trop. mais sa diggante ak Omar. waaw maa rakk lañu rek maa rakk rek lañu. du leneen sa mag tam mënut a weesu mag rakk mënut a weesu rakk suñu yaay nag lépp moom la waaw sama yaay man moom laa moom laa xam sama papa moom laa xam sama nekkee lu ndaw ba léegi ñoom laa xam ñoom laa nekkal xëy na nag àdduna day dox benn jamono di nga mën a écarter def lee wala ma doxalee ne waaye teewul ñoom laay nekkal parce que ni ñu yaree rek noonu la ñuy dundee da kër gi ambiance chaque jour ba ñu ngi gisee ni nga ñuy dundee jàmm ak salaam xam nga moo ñu fekk ne itam waxtaan kenn ku ci nekk boo nekkee ci dara sa naw la ñu fekk la ci loolu dong la du leneen. saa kañ lay takkaat ngemb nag du mën a ñàkk. waaw comme fu mu toll nii nag saison bi moom daanaka ko ubbi na waaw ñu ngi ñaan yàlla aussi yàlla may ñun combat. Yékini Junior gaa yaa man ku ma yàlla boole rek pare naa ko bëri moom. Balla mën na yàgg Garga la gën a bëgg. waaw man nag du ma def leen lu jot lu ma def lu méngoowut ak sama bëgg-bëgg kilifa aussi waaw. comme ku Balla tànn moom ngay tànn. non parce que tey kenn ku ci nekk bu doon sa sago di nga am lu ëpp loolu mais man bu doon sama sago man Eumeu Sène laay bëri. Eumeu Sène man bu doon sama sago man moom laay bëri. Eumeu du la raw. bu dee raw rek kon boo ñaar duñ ko ba ak Balla Gaye Modou du duñ ko waxee Ama Baldé du dëgg làmb na dañoo toll foo xamante ni ñi ci kaw dañuy geesu ci suuf xam nga li ma la parce que loolu mooy liy taaral làmb ji mooy la nga xamante ni mooy defar làmb ji mais man sama për sama bëgg-bëgg préféré Eumeu Sène. Eumeu daal nga préféré. waaw moom la préféré. am nga si droit.